mbokk alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain ngi yeesalaat sant suñu boroom subhanahu wa taala mi ñu wërsëgal xéewalal ñu ñuy dund chahru ramadan moo wërsëgal ñu it ñu bokk ci ñi daje ci ab néegam di fas yéene jàng ab téeréem ñi ngi ñaan yal na yàlla subhanahu wa taala nangul ñu ci lépp loo xam ne ni doon na ci bégile ci làmmiñu yeneen tam ba yal na yàlla boole ñu ca ca boole ci it boole mbokk yi nga xam ne ñoo koy nar a déglu ak fu ñu mën a nekk ak ña nga xam ne ñoo dox suñu diggante ak ñoom di leen ko jottali kon ñi ngi wéy ba tey ci saaru màgg wi nga xam ni mooy suratu nisa yàlla dogal tey ñu war a jël suñu fukkeelu bunt suñu fukkeelu bind ak ñett tombeek aaya bi nga xam ne mooy aaya 141 fi suñu boroom subhanahu wa taala di waxee alladina yatarabbasuuna bikum kon incha allah bu dee Cheikh Ousmane pare na ñu bàyyi ko jël suñu bind bu njëkk أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا معكم وإن كان للكافرين نصيبا قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين الله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين الكافرين على المؤمنين سبيلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون مذبذبين بين ذلك لا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم suñu boroom mi ngi wax ci naafiq yu bon yooyu allazina yatarabbasuuna bikum ñoo ñi nga xam ni ñi ngi leen di xaaru ay toog di seet lan moo leen di dikkal fa in kaana lakum fatxun min allah su nekkee ñeen leen ak ubbee gu bawoo ca yàlla muy victoire bu yàlla jagleel jullit ñi qaalu alam nakum maakum ñu ne waaw jullit ñi ndax nekk ñu woon ànd ak yéen wa in kaana lil kaafirina nasib su dee ne dafa ñeel yéefér yi ab cër nag qaalu alam nastahwiz aleykum ama ndax ñu nekk ñu woon di farandoog yéen wa namnaakum min al muminin ndax ñun nekkuñu doon leen fekk di leen aar ba jullit ñi duñ mën a yegsi ci yéen fallahu yaxkumu baynakum yowma alqiyaama yàlla nag mooy atte seen diggante yowm alqiyaama walan yajal allahu lilkafirina ala almuminina sabila te yàlla day du def mukk ñeel yéeféer yi ci kaw ñi gëm yàlla benn yoon bu ñuy am ci ñoom inna almunafiqina yuxaadi'uuna allah naafiqii day dañuy naxanteeg yàlla wa huwa xaadi'uhum te yàlla day moom it mi ngi leen di nax wa ida qaamu ila salaa heure bu ñu taxawee jëm ci julli qaamu kusaala dañuy taxaw doon ñu tayal yuraa'uuna annaas nekk di ngistalu nit ñi kese wala yazkuruuna allaha illa qalila te duñu tudd yàlla lu dul loo xam ne lu néew la muzabzabiina bayna dalik nekk di déng déng diggante loolu ay diggante jullit ñi yéeféer yi laa ila haula nekkuñu di far ci ñi muy jullit ñi wala ila haula nekkuñu di far ca ñee it muy yéeféer ya wa man yudlilillah ku yàlla réeral day falan tajida lahu sabila doo ko mën a amal benn yoon bu mën a jaar ba mucc mi ngi noonu mbokk jaami yàlla yi xam nañ ni ñetti mbooloo la ñi nga xam ne dañoo gëm yàlla feeñal ko yal na yàlla boole ñu ca mu am beneen mbooloo boo xam ne dañoo weddi yàlla feeñal ko mu yéeféer ya mu am nag beneen mbooloo bu gën a compliqué mooy naafiq yi naafiq mooy yéeféer ci biir jullit ci biti loolu tax mbiram compliqué soo demee suratul baqara ba ko ubbee rek suñu borom dalay wax melokaanu jullit ñi ci juróomi aaya melokaanu yéeféer yi ci ñaari aaya amma nafiq yi fukki aaya ak nangam yàlla dala ko wax ci ñoom ndax seen mbir ni mu compliqué bokk na ci loolu nafiq yi bu ñu daan dem guerre benn du ñu génn daañ fexe ba am lay bu leen tey dem ca guerre ba même bu ñu àndoon ca guerre ba it ca gannaaw la ñuy nekk duñu xeex duñu jege fu ñuy xeexe su yàlla may xéewal jullit ñi ca loolu it jullit war koo gëm yow mi dem ca guerre ba yàlla dogal nga gañe mbokk ubbeegu la yàlla ubbee la xéewal gum la defal la waaye du sa man-man du sa kàttan danga caa war a sant yàlla yow mi dem di jàngi yàlla def nga réussir fathun min allah la ubbeeku bowoo ca yàlla la yow mi jëm ca commerce ba yàlla ubbil la xéewal loolee wala fi sax dañ koy wax diw de yàlla ubbil na ko ay xéewal loolu nga war a gëm fathun min allah bu ca bakkoo bu ca sant keneen ku dul yàlla mi ngi noonu bu ko bakkoo bu ca sant keneen ku dul yàlla fathun min allah su dee ne nag loolu am na ba jullit ne jël ci ay ngañaay naafiq yi nag ñooy ñëw taxaw premier sàppe ah ñun ñoo yéen a faroon ay kon lañ gañee ci ngañaay yi nañ ñu ci jox suñu wàll amma nag bu dee ne yéeféer ya ñoo am benn cër te loolu yéeféer bu gañee armée l'islam du fathu min allah nattu la bu bawoo ci yàlla muy cër bu leen yàlla jox ci àdduna ngiree gën leen a mën a mbugal gën a yokk seeni bakkaar li yazdaadu isma comme ne ko yàlla di waxe su ko defee ñu rocceeku guddi dem ca yéeféere ne ah gaa yi naka mu alam nastahwiz aleykum di ñun ñoo ñëwoon farandoog yéen dëppoo ak yéen istahwaza mooy ka nga xam ne fexe na ba dugal la ci ay xalaatam moom la borom bi di wax naan istahwaza alayhim sheytaan fa ansahum zikrallah gaa yu sàggane seytaane fexe na ba farandoog ñoom këf si ni xalaat fàtteloo leen tudd seen borom ca it ñun day ñoo nekkoon di fexe ba jullit ñu duñ mën a dal seen kaw ca mbokku rasul sallallahu alayhi wa sallam bokkoon na heure boo xamee ne nii da daan jëm ci guerre day nëbb guerre bi ci beneen guerre wasalam su jógoon tey ne day dem Kaolack day woote ci jàkka ji ne waajal leen ñu dem ndar waajal leen ñu dem ndar suñ demee ba croisement jam ñaajo mu doog a dévier armée bi yóbbu Kaolack ndax am na nafiq yu nekk ci biir li ñuy xaar rek yonent bi wax benn décision rek ñu départ dem ca seen farandoo yéefir ne ah attention yonent baa ngi ñëw kat armée bi nii la demee armée bi nii la demee loolee mboole mi armée noonu la doon def ñu fàttali ko tafsir yi passé xëy na ci semaine lay toll gis nañ keroog koo xam ne nii sax du woon nafiq waaye intérêt adduna rek moo ko puusoon muy xaasib ibn abi baltata ba loolu tax bi yonent bi dee dem ubbi ji makka mu bind benn lettre jox ko benn jigéen ne ko demal ne Abu Sufyan yonent bi mi ngi waat pour dal si ci kawam ak la ca Omar defoon ak la ca yonent bi tontu woon almuhim mooy secret yonent bi yépp ñoo ko doon jox yéeféer yi bu ko defee bu yéeféer yi amee ngañaay ñu dem ci ñoom ne la gaa yi suñu wàll ndax kat ñun ñoo fexe woon ba jullit ñi dal daluñu seen kaw borom bi nag subhanahu wa taala ne moom mooy àtte suñu diggante yowmal qiyaama ca loolu it muy wane ne naafiq day mën naa nax ña mu nekkal ndax soxnaam ndax ay xaritam ndax ñëpp waaye nag ndax mën naa nax yàlla déedéet mën ta nax yàlla suñu borom nag ni yàlla muy àtte diggante yowmal qiyaama ca it loolu it la jullit war a gëm mbokk amul benn juyoo bu am ci kaw suuf lu dul àllaaxira yàlla dana ko àtte abi zar alxifaar yi nee na dama ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu romb ñaari xar ña ngay dóorante mbëkk yoo tar yonent bi na ko abu zar ndax ñii xam nga luñ jote mu ne ko ah man koy xawma ko mu ne ko mañit day xawma ko ndax yonent bi xamul woon kumpa mu ne waaye day suñu borom yàlla yowmal qiyaama dana leen dekkal àtte seen diggante gannaaw ba ñoom ñu doog leen wax dem leen nekki poussière boo déggee suñu borom naan yéefiri yowmal qiyaam danaan yaa laytanii kuntu turaaba mooy bàyyi muy bu leen yàlla attee ba pare da leen di delloo ñu nekkaat poussière ko defee nit ak jinne ñoom ñooy des yàlla mooy atte suñu diggante yowmal qiyaama loolu tax ku nekk boo ko bëggee nax xalaatal yàlla muy àtte ndax ma mën nga ko nax déedéet borom bi nag ne du defal yéefiir yi ci kaw jullit ñi benn yoon ay ci manière générale yàlla du seetaan yéefiir yi faagaagal l'islam am na benn américain boo xam ne dafa tuub jamono yi passé bi mu tuubee gars yi di ko laaj yow lan fu nga tuub ne moom day dafa xam secret yu bari ci investissement yi nga xam ne tey en Amérique en Occident ñi ngi koy def ngir xeex l'islam ci islam rek ba tey mooy diine buy avancé ci àdduna bi mu xam ne lii ci yàlla la jóge ndax xeex bi ñuy xeex l'islam beneen xalaat bu mu mënoon a doon bu ñu ko ko xeexee faroon na ci kaw suuf bu yàgg waaye l'islam loo ko gën a xeex mu gën a avancé yuriduna li yutfiu nuur allahi bi afwahihim wa yaba allahu illa an yutima nuura mi ngi noonu ila axiri gannaaw ba it ci ab yéeféer gis nañu ne yowmal qiyaama it yàlla du ko may lay ci kaw jullit mi nga noonu ren yéeféer boo xam ne noonu yàlla la suñu borom yàlla du jël ay àqi jullit di ko jox ab yéeféer boo xam ne dafa noonoo woon yàlla subhanahu wa taala borom boobu nag mu delluwaat ca naafiq yu bon yi mu ne naafiq yi dañuy naxanteeg yàlla ca yàlla mi ngi leen di nax nan la ñuy naxanteeg yàlla mooy bu julli ñi jógee jëm ca jàkka ja ñu topp leen bu ñu jógee jihaat ñu ànd ak ñoom aj Makka ñu ànd ak ñoom léegi nag di jàpp ne ah garaawul àllaaxira ji ñuy wax bu amee it yàlla subhanahu wa taala fu mu ànd ak jullit ñi dana ma fa dogal naam lu bari ci suñu ndaw yi tey loolu da leen di nax dañuy dem dugg dans la franc-maçonnerie boo ko franc-maçon bi ngeen di dégg amul ku ciy dugg lu dul da nga seede ne mbooli mi diine yi yi ñuy wax ci kaw suuf ay caaxaan la c'est faux da nga daañ la tester lu la sa diine aramal daañ la ko defloo daañ la tëddee góor jigéen daañ la sawloo ci alquran daañ la defloo rek kéeféer goo xam ne kéeféer gu sax la loolu mooy franc-maçonnerie gars yi nag dañ ciy dugg nag am ci seeni million ba pare nag jàpp ne nag mën nañu sol mbubbum lislaam nag dugg ci biir jullit waaye lu ci bëri balaa yàgg rek yàlla toroxal la feeñal la gis nga ala kulli xaal ñi ngi naxanteeg yàlla yàlla di leen nax nu leen yàlla di naxee yàlla di yokk seeni xéewal mbokk noonu la yàlla di naxeb jaamam di yokk say xéewal rek ngay continuer sang mooy bari na fi ay nit ñoo xam ne noonu lañ mel dajale jaami yàlla yi dox seen digganteeg julli koor di leen fecc loo ko dukkat loo ko caaxaan yu kenn xamul ci heure boo nee milliard ñu teg sa loxo milliard deux milliards ñu teg sa loxo milliard bokk loolu yàllaa ngi naxanteeg yow mi ngi noonu yu xaadiuuna allahu xaadiuhum di naxanteeg ñoom loolu lu mu yàgg-yàgg day mës a jeex day jeex rek ñu takk la delloo la sa borom borom boobu nee na dañuy naxanteeg yàlla yàllaa ngi naxanteeg ñoom lan mooy mandarga nafiq mandarga nafiq mooy bu jógee jëm ci julli da nga koy gis mu doon koo xam ne ku tayal la ku tayal ci julli ga gannaaw ba la tax muy julli mooy ngistalu nit ñi bu nekkee fu nit ñi nekkul doo ko gis mu julli gannaaw ba bu taxawee du julli boo ko seetloo këpp këpp këpp këpp asalaamaaleykum ñu ngi noonu duñ tudd yàlla lu dul lu néew lii mbokk suñu borom nee na mooy mandarga nafiq waaw bu dee mandarga nafiq mooy kii sàgg na julli ki ne jullit la ci du julli nag moom lan mooy mbiram loolu ñu bàyyi ci xel bu baax mbokk jullit ñu ngi noonu yal na yàlla yërëm suñu góor ga moor kan suñu mbokk jàkk la woon dafa am ñu amoon xew-xew bu ñuy def ci wetu këram nee na mu ne ñu nekk suba di kër kër kër kër ba boori gee ma woo seen kilifa gi ñu leen waaw man de li ma jaaxal yéen day man moom lii moom dañ ne dajom jaamu yàlla waaye man damaa gisul ku julli mu ne ko waaw waaw baax na waaw góor gi waaw daal di koy lay dem ba mu demee ba ca micro ba mu ne ah góor gu baax mi ngi may woo naan ma daa gisul kenn ko julli ci ñun waaye ñun li ñuy def moo gën a màgg julli yaa ngi dégg julli lu baax la koor lu baax waaye ñun li ñuy def moo gën a màgg julli yaa ngi dégg loolee mbokk da ngay gis ne nattu la bu ñu yàlla nattoo ci biir lislaam ci liy tax ma tudd ko nattu mooy ndeysaan ay ndawi jullit dañ caa nekk ñoo xam ne ñu sincère lañu ñu jàpp ne liñ leen wax am na mi ngi noonu ñu jàpp ne li ak jaamu yàlla la te dañ leen di diri yóbbu naari jahannam yonent bi alei salatu wasalaam waxoon na ko mu jóg jamono dana am ay nit ñoo xam ne dañuy wër di woote ci buntu sawara lañ taxaw koo leen wuy suñu tàbbal la sawara waaye képp koo xam ne bëgg na laa jaamuloo yàlla subhanahu wa taala ba pare jox la garantie ca loolee nga xam ne mooy bu la neexee bul julli bu la neexee del woor kaay rek daje ñu fecci naan kafe góor ak jigéen ñi jaxasoo ñu sant sëriñ caam suñ paree suñ àjjana taxaw na ku loo nar a wax loolu mu la nar a yóbbu sawara mbokk julit loolu ñu bàyyi ci xel bu baax borom boobu subhanahu wa taala nag ne dañu tudd yàlla lu dul lu néew mu bari it ci ay nit rek lañ nga dem ci jàkka imam ba sax moo koy def julli goo xam ne këpp këpp këpp këpp këpp mbokk loolee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam benn waay ñëw na ci jàkkaam dugg ci jàkka ji julli ba pare dem nuyu ko mu ne ko saway demal julli julleegoo de mu demaat këpp këpp ñëwaat mu ne ko julleegoo ba ñetteelu yoon bi lan la waa ji bàyyi woon ci julleem mooy ak dal bokk boo delloo ci mbooleem téere yi sunu maam yi jàngale fii dañ naan la bokk na ci faratey julli ñaar yi al i'tidaal wa tumanina i'tidaal mooy lan bi nga rukkoo nga siggi ba taxaw kocc ba sa yax yépp dellu ak tumanina mooy lan mooy nga dal fa ab diir nag bi nga sujuuti ba jóg nga toog ba say kocc sa yax yépp dellu ak tumanina mooy nga dal fa ab diir mais lu bari ci nit ñi da ngay gis rukkoo këf këf sujuut ñoo xam ne buñ tegee seen loxo bab bi rek la ñuy yëkkati dóoraat seen kii wallahi mbokk julliwuñu wallahi mbokk julliwuñu mu ngi noonu loolu la ñu bàyyi ci xel bu baax muy wane it na mbokk yow miy julli xamal ne yaa ngi taxaw sa kanamu boroom ngal la waay rafetalal njàngin ma rafetalal tudd sa boroom looloo tax a rasul sallallahu alayhi wa sallam dañuy wax ne doomu aadama yi day nit dana julli ba pare ñu noteel ko julli gi de mat na am na fukk tuyaaba fukki daraja yi julli méngool am na koo xam ne juróom-ñeent la am am na ko am ñett am na ko am ñaar am na ko am benn am na koo xam ne amul dara sax moom loolu ñu bàyyi ci xel bu baax borom boobu mbokk loolu mu wax ca julli googee naafiq yi di ko def mu ne nag naafiq yi bokk na ci seen màndarga ñoom faruñoog julit ñi faruñoog yéeféer doo am fenn foo leen mën a takk du ñuy julit du ñuy yéeféer ndax la julit ña nekk ña nga ca waaye la yéeféer yi nekkit ña nga ca bu dee ni ci jëf dañuy ànd ak julit ñi bu dee ci pas-pas ña nga ànd ak yéeféer ya loolee mbokk da ngay gis ci mandarga naafiq yi la bokk donte ne nag am na ci it lu ci yonent bi alayhi salaam dolli woon te malheureusement bari na lool yàlla nattoon na ko rawatina ñun sénégalais nee na aaye naafiq ñetti la su waxee nga yëg ne day fen soo ko wóoloo mu wor heure boo xamee ni nii ah isa wa takallama kazaba wa isa waada axlafa wa isa utimina xaar mu ne lu mu diggante it day wor dig boobee ca loolee mbokk da ngay gis ne ak bari tey ci doomu aadama yi rawatina ñi ñi tuddi ouvrier nga xam ne seen liggéey liggéeyu jaamu yàlla la dara gunte ne ko tuyaaba maçon bi xëy di yenu brique ba yaramam bi diis menuisier bi dugg ci bant bi menuisier métallique bi dugg ci fer bi jaamu yàlla gu rëy la mais lu ëpp ci ñoom seytaane daf leen di wor ci ne pour ñu matal seeni dig lu jafe la ala kulli xaal loolu mbokk mandarga na fiq boo xam ne ku ñu da ko war a bàyyi suñu borom nag ne ku yàlla réeral kenn du ko mën a utal yoon bu mu jubee loolu it moo tax ba ngallaawaay da ngay ñaan yàlla jubal la képp koo bëgg mu jubit da ngay ñaan yàlla jubal ko mbokk yàlla mooy def lu ko neex yàlla dem ca kër yonent yàlla noonu mi woote junni at mu jël doomam ji mu jur ak soxnaam suñuy tëddal génne leen ci lislaam def leen ay yéeféer am déet dem ca kër firawna nga xam ne doy na rek ci noonu bu yàlla firawna mu ngi noonu xaw ma ko gën a nekk noonu bu yàlla ci jaamu yàlla yi gannaaw iblis ci ko toll ne firawna suñu borom jël soxnaam dugal ci biir diine ci loolee mbokk kon day wañe ne yàlla mooy jubal ya looloo tax ñu ko koy ñaan fukki yoon ak juróom-ñaar ihdina siratal mustaqim yal na yàlla jubal ñu jubal suñu njaboot
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما بارك الله فيك suñu borom mu ne yaa ayuha alladina amanu ey yéen ñi nga xam ne da ngeen a gëm laa tattaxisu alkaafirina awliyaa min duni almuminin bu leen jël mukk yéeféer yi def leen ñu ngeen di féetewoo gannaaw julit ñi ay bàyyi ña gëm aturiduuna an taj'alu lillahi alaykum sultaana mubina ndax da ngeen a bëgg defal yàlla ci seen kaw lay woo xam ne layu leer la inna almunafiqina fi darki l asfali min annar naafiq yi day ña ngay nekk ca kal ba gën a suufe ca sawara walan tajida lahum nasira ca doo leen mën a amal kenn ku leen di dimbali illa allazina taabu lu dul ña nga xam ne nag dañoo tuub wa aslahu ñu yéwénal lépp lu ñu yàqoon wa'tasamu billah wëlbatiku mooy ci yàlla wa axlasu diinahum lillah sellal seen diina jëñeel yàlla fa ulaika ma almuminin ñu mel nii de dañu ànd ak julit ña gëm wa sawfa yu'ti llahu almuminina ajran azima yàlla xel sa naa jox julit ña gëm yool boo xam ne yool ba màgg la maa yafalu allahu bi azabikum mu yàlla lu muy jëfe ci seen bëggal ay lan la koy jëriñ in shakartum wa amantum su dee ne nekk ngeen di aji sant nekk di aji ku gëm wa kaana allahu shakiran alima te yàlla day mooy cantaakun bu mag bi kay sant sant gu sax te it xam kan moo yeyoo cant googu mi ngi noonu suñu borom jalla wa ala bokk suñu borom mi ngi ñuy woo ey yéen ñi nga xam ne da ngeen a gëm bu leen jël yéeféer yi di leen féetewoo bàyyi ay julit ca loolu mbokkoo mooy la nga xamee ne mooy jukko naafiq tey jii li ngay gis boo demoon dëkk bu mel ne Palestine tey léeg-léeg nga gis benn waay bu ñu jàpp rey ko publiquement takk buum ci baat bi di ko diri di ko wërile mbedd yi suñ paree takk ko ay lenge ca kaw ñooñu mbokk mooy espion yi nga xam ne ñooy dem ci israéliens yi di leen wax secret jullit ñi mi nga noonu wax leen seeni plan wax leen seen dëkkuwaay wax leen seen yépp ñooñu ku ci palestinien yi jàpp lañ lay def moo gën a garaaw bu ñu jàppoon ab yahut ndax ñoom ñoo gën a bon yahut yi mi nga noonu bu leen jël yéefee di leen jël farandoo gannaaw jullit ñi waaw ndax da ngeen a bëgg yàlla am ci yéen lay te mooy képp koo xam ne da ngaa gëm sa boroom ngal la way intérêt bu la ab yéeféer mën a jox ci kaw suuf mi ngi noonu ba demoon ci gaay yi nga xam ne dañuy def espionnage bokk na lu ñuy wax su ñëwee bëgg ci yow ay information dañuy jël benn chèque rek signé chèque bi ne la remplir lu la neex bu la neexee bind cinquante millions bu la neexee bind cent millions amul problème nañ fexe rek ba li ñu bëgg nga leen koy defal suñu borom yàlla nag ne yéen maadaama jullit ngeen bu gëm ab yéeféer lu mu leen mën a proposé ci àdduna ngallaawaay bu mu tax ngeen dem di farandoog moom ndax da ngeen a bëgg a jox yàlla ci seen kaw lay boo xam ne nii ëllëg dana leen mbugal mbugal bu leer te mbokk suñu borom yàlla ci maadu teem bu ko neexoon mboole mi jàmm mu jël tàbbal sawara kenn du ko jox demande d'explication waaye du dugal kenn sawara lu dul am na lay bu leer bu muy won mboole mi jaamam di leen kii kët saab jaam la woon maa ko bindeen pour mu jaamu ma waaye daa bàyyi woon jaamu yàlla ga fi nii la doon def nii la doon def ba bu ko yàlla yi dugal sawara mboolem nit ak jinne dañuy reconnaître ne loolu ak maandute la xanaa yéen juri ñi da ngeen bëgg yàlla am ci yéen lay bu mu leen tàbbale sawara ba tax ngeen di dem di collaborer ak yéeféer yi borom bi ne xanaa xamu leen ne naafiq yi day kal ba gën a suufe ci sawara fa la ñu nekk mbokk ajjana ay daraja la yu jëm kaw ngi noonu am na juróom-ñetti duggukaay sawara ay pax la mu jëm suuf am na juróom-ñaari duggukaay moom la borom bi di wax naan laha sabaatu abwaab mi ngi noonu sabaatu abwaab borom xam-xam yi ni jahannama la lazza sair saqar xotama ak la nga xam ne ni moom mooy hawiya nga xam ne moom mooy ba gën a suufe ca la nga xamee ne mooy fa la naafiq yi di nekk na am suñu borom it foofu la naafiq yi nekk dana am ñeneen ñu mu fa dugal bokk na ca ñooñi njabootu firawna wa yawma taqumu saa adxilu ala firawna ashadd al azab suñu borom mu ne jël leen ñi àndoon ak firawna yóbbu leen fa gën a garaaw ci sawara te mooy fa gën a suufee àjjana fu gën a kawe moo gën a neex sawara fu gën a suufe moo gën a ñàng fale iblis di nekk ak junuudam may armem yaka yam doon àndal di réeral nit ñi ña nga xam ne dañoo féeteerlu woon gën jaa tar ci féeteerlu fa la ñuy féete allazina kafaru wa saddu an sabilillah ala kulli xaal fa gën a tàng ci sawara gën faa lëndëm gën faa suufe suñu borom ne na fa lay dugal naafiq yi ñu ngi noonu borom boobu nag mu ne buñ fa duggee du ñu am kenn ku leen dimbali ca mbokk suñu borom képp ku dee yàlla ngëm yàlla même bu dee sàgg noon nga ba tabbi sawara suñu borom yàlla subhanahu wa taala dana la dimbali bis génn la sawara amaa ku dee yàlla kéeféer wala nga dee yàlla naafiq ku mel noonu sawara lay sax xaalidina fiha abada walan tajid lahu nasira suñu borom yàlla ay bunti tuubam tëjalu ko kenn kenn ci ay jaamam firawna mu bon moom ma leen doon wax keroog bi muy yónni yonent yàlla Muusa ci moom lan la ko wax ay Muusa boo demee yegg Haruna fa quula lahu qawlan layyinan la'allahu yatazakkaru aw yaxsha wax leen nag moom wax yu nooy ngiree mu xalaat wala mu toroxlu dellu yàlla Muusa bi mu ñëwee lu mu ko wax ay firawna hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fa taxsha ay firawna xanaa doo kaay ci loo xam ne dalañ la sellal mu jëmal la sa borom nga toroxlul ko ay bi firawna nangu woon keroog rek àjjana la jëm loolu it muy woñe ne naafiq yi kenn gënu leen a bon jëf ci kaw suuf ñoo gën a bon yéefiri jëf fuuf waaye suñu borom ne ku ci matal ñeenti charte yi day danaa ko baal considéré ko boole ko jurit ñi borom bi ne xanaa lu dul ñi nga xam ne dañoo tuub tuub kéeféer ga ñu nekkoon naafiq ga ñu nekkoon gannaaw ba lu ñu yàqoon ci deru julit ñi lu ñu yàqoon ci lislaam ñu wëlbatu ko yéwénal ko te loolu mbokk mi nga noonu bari na fii ñoo xam ne bu ñu seen buñ tuub buñ doon tuub tey war nañoo dem ci kanam rajo télévision yépp ne héey man de maa fi ma sa wax ne ku ma gis texe wallaay dama doon kàcc ma doon kàcc de ku dem jaamu jul yàlla man de maa fi waxoon ko jaayanteeg man am nga daraje sahaaba yi dama doon kàcc de man de maa fi waxoon ni suñ diw rañaanal ma dem naa ba ca yàlla may ram mu jaam yi dama doon kàcc de yéwénal lépp loo xam ne waxoon nga ko ci riiral doomu aadama yi nga daal di ko yéwénal i nga noonu gannaaw ba yëpp suñu borom mu ne wa'tasamu billah ñoo daal di moy ci yàlla doyloo yàlla jàngoon nañu démb suñu borom ne ñay dem ci yéeféri ayabtaxuuna indahumul izza ndax dañuy dem di sàkku kàttan ci yàlla borom bi subhanahu wa taala mu ne loolu mooy mandarga nafiq amaa ñu wëlbatiku nag mooy ci yàlla ki mooy ci yàlla mbokk mooy ki wéetal yàlla suñu borom nee na wa'tasimu billah wa'tasimu bi hablillah wa'tasimu billah mooy mooy leen ci yàlla wéetal ko bu leen ko bokkaaleeg dara wa'tasimu bi hablillah hablillah mooy alquran ak sunna mooy mooy leen ci alquran ak sunna loolee da ngay gis ne mooy ñaari moy yi julit di moy ngiri mu daal di doon koy texe loolu kon la borom bi subhanahu wa taala wax wa'tasimu billah muy ñett ñeenteel bi it wa axlasu diinuhum lillah ñu sellal seen diine ngir yàlla jàng jàng nañu sànq bu ñu jógee jëm ci julli yurauna nas naafiq léppam rek ngistal la léppam ngistal la su ko defee suñu borom nag nee na ñu wëlbatiku nekk léegi lu ñuy defeti rek yàllaa tax ñeenti charte yi de buñ ko matalee su boobaa yàlla mu ne dinaa leen boole ci jullit ñi te it bokk na lu borom xam-xam yi di wax rasul sallallahu alayhi wasallam avant muy faatu nga xam ne yàlla ubbil na ko makka doomu aadama yi di jóge gox yu nekk yadxuluuna fi diini lay afaaja presque madina amatul woon ay nafiq madina amatul woon ay nafiq ni ngi noonu loole da ngay gis ne moom la ñuy gis ci ñoom te mooy ñu ëppoon ci ñoom mujj nañu sellal seen diine yàlla subhanahu wa taala baal leen borom bi nag ne xel sa naa jox jullit ñi gëm yool bu màgg yool bu màgg boobu mooy aljanna bi nga xamee ne nii rasul sallallahu alayhi wa sallam nee na jullit bi gën a tuuti nguur ca àjjana mooy kii am nguuru àdduna bul ko tàllale ba mu nekk fukki yoon nguuru ko gën a tuuti la ca àjjana noonee la nguuram di tollu wala boog mooy ëpp loolu mi ngi noonu borom bi nag subhanahu wa taala ne bëggul ñu mbugal nan lay def pour di leen mbugal fekk ne yéen a ngi nekk di ma sant yéen a ngi nekk di ma gëm mbokk sant yàlla la jiitu ci sant yàlla mooy yàlla da laa bind may la kattan may lam xel sant yàlla nga kon mooy lan mooy nga jaamu su borom heure boo demee yàlla sant la nga jaamu keneen wala nga toog bañ koo jaamu xamal ne yow santoo yàlla ca bokk na ci jaamu yàlla nga yëg ne mboolemi xéewal yi nekk ci yow ci yàlla la jóge bokk na ci sant yàlla nga yëg ne mboolemi xéewal yi nekk ci yow danga ko war a delloo fa neex yàlla suñu borom nag mu ne bu dee yéen a ngi ma sant di ma gëm naka laa leen di mbugale ca yàlla moom mooy santaakoon bi ay loo ko sant mu sant la xéewal gum la defal nga sant ko te mu yokkale beneen boo amul woon mi ngi noonu ba mbaa xéewal ga muy mujj sant ay jaamam mooy tabbaleen ajjana yàlla na yàlla boole ñu ca mi ngi noonu
لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما barakallahu fiik suñu borom mu ni laa yuhibbu allahu aljahra bi suui min alqawlu yàlla day bëggul kaweel ci lu ñaaw ci ay wax illa man zulima lu dul koo xam ne dañ koo tooñ wa kaana allahu samian alima te yàlla day aji dégg la aji xam la in tubdu xayran aw tuxfuuhu su dee da ngeen a feeñal aw yiw wala ngeen nëbb yiw wa aw taafu an suuin wala ngeen jéggale ci lu ñaaw lu ñu leen def fa inna allaha kaana afuwan qadira sa borom yàlla day nekk na kuy jéggalaate ku am kàttan ci mën a fayu inna allazina kafaru billahi wa rusuli naam inna allazina yakfuruuna billahi wa rusuli ña nga xam ne day dañoo weddi yàlla weddi ay yonentam wa yuriduuna an yufarriqu bayna allahi wa rusuli bëgg nag di teqale diggante yàlla ki yonentam wa yaquluuna nu'minu bi baad ñu naan ah ñun day gëm nañu lenn la wa nakfuru bi baad waaye weddi nañ la ca des wa yuriduuna an yattaxidu bayna dalika sabila di bëgg nag di jël ci diggante loolee aw yoon ulaika humul kafiruuna xaqa ñooñu de ñooy yéefér ya tigi yéefér ya dëgg wa aatadna lil kafirina azaban muhina te ñun day ñi ngi waajal yéefér ya mbugal moo xam ne buy toroxalaate la walladina amanu billahi wa rusuli ña nga xam ne nag dañoo gëm yàlla ak yeneen tam walam yufarriqu bayna ahadin minhum te teqaleewuñu diggante kenn ci ñoom ulaika sawfa yu'tihim ujurahum ñooñu day xel sa na leen a jox seeni pay wa kaana allahu gafuran rahima yàlla day mooy ka nga xam ni mooy baale ay bakkaar di yërëm ay jaamam mi ngi noonu jalla wa ala mbokk suñu boroom nañu xam ni moo ñu bind wërsëgal ñu nu ñuy waxe ca détailleel ñu ko mu ne doomu aadama moom moo ko bind defal ko lisaanan wa shafatayni may ko làmmiñ may ko ay tuñ yi muy waxe loolu boo seetee nekkul loo xam ne nii rek lu automatique la xéewal la gu la yàlla defal pour preuve xañ na ko ay millions ci ay jaama ma demoon dañ naan la nangami téeméeri million ci àdduna bi duñu wax mi ngi noonu duñu wax ci en général boo dul dégg doo wax loolu nag di xiiwal gu rëy gu la yàlla defal suñu borom nag mu ne ngalawaay matériel bii ma la jox naam nga xam ne wax lu compliqué la commencé làmmiñ ya tuñ ya voix ba ila axiri ngalawaay bugguma nga wax ci lu ñaaw wala fi dañ naan ku la abal ay bët nga xool fa ko neex bugguma nga wax ci lu ñaaw xanaa lu dul koo xam ne dañ koo tooñ waa ji nga xam ne dañ koo tooñ day ki ñëw ci digg mbooloo mi daggal la saagaw ndey bu la neexee jóg daggal ko saagaw ndey ñaari bàkkaar yépp moom lañ koy bindal gis ngeen yow amoo ci benn problème ki nga xam ne dañ koo tooñ mu dem ci attekat ba it di wax ne diw dey moo ma tooñe nangam nangam nangam loole da ngay gis ne dara newu ci lenn ci borom xam-xam yi dañuy wax cey waay ak a neexoon yàlla ne illa man zalama lu dul ko tooñ mooy yàlla bëggul ñu wax lu bon lu dul ko tooñ mbokk bu doon loolu day jëw dagan waaye suñu borom dana lu dul ku ñu tooñ kon ki ñu tooñ moo am droit di wax lu bon amma yow mi nga xam ne tooñuñu la waajee def lu bonam yeneen ci bi alei salaam nee na boo koy wax gannaawam yaa ngi tooñ nga noonu yaa ngi tooñ loolu kon di mbir moo xam ne bu ñu war a bàyyi xel la moo ko xamal ne li gën a jafe ci jaamu yàlla mooy wattu sa làmmiñ yal na yàlla jàppale ñu ci waaw borom xam-xam yi bind ci siira nee nañ Abu Bakar Siddiq nga xam ne moo gën ci xeet yi gannaaw yeneen ci yàlla ba daana téye làmmiñam ba naan ko anti lesi awradi niil mawarit fu mu dugal yaa ma fa dugal yaa ngi dégg te mbokk loolu dafa jafe téye sa làmmiñ su ko defee ku nekk di war a ñaan yàlla fu mu mën a toll yàlla musal ko ci ay làmmiñam yonente bi alayhi salaam daana xëy di wax allahuma inni auzu bika min sharri nafsi wa min sharri lisaani wa min sharri qalbi wa min sharri maniyi ey yàlla yàlla nag ma musal sama ay xol sama ayu làmmiñ sama ayu ay bët ila axiri ndax yàlla rek moo la mën a musal ci moom rasul sallallahu alayhi wa sallam nee na nit ki bu xëyee loxo tànk bopp lépp dañuy wax ak làmmiñ naan ko ah làmmiñ attention de fa innama nahnu bik in istaqamta istaqamna wa in awajta awajna làmmiñ ñi ngi sa gannaaw de boo jubee daan jub boo jengee ñu jeng fexeel ragal yàlla ci ñun yaa ngi dégg ala kulli xaal suñu borom nee na bëggul kuy wax loox ju ñaaw rawatina nag mbokk caddo yi nga xam ne mën nañ taxaw fa ci digg mbedd ma dagg saagoo ndey woo xam ne ñëpp di ko dégg loolee da ngay gis ne suñ mag ñi dañ leen yaroon ñu faxas seen nopp naan tub nag dégg mu ngi noonu ala kulli xaal borom bi nag ne mooy dégg lépp mooy xam lépp bëgg ko ca loo wax mu dégg ko tey jii da ngay gis benn waaye bu jógoon bëgg a wax lu ñaaw gestu yem ci ah rus naa diw sax yaa ngi dégg mooy comme diw ngi fi rus naa wax ci moom lu ñaaw am na ñoo xam ne seen kanamub sëriñ xalaatuñu wax fa lu ñaaw waaye suñu borom nee na nag lépp lu ngeen di wax dégg naa ko xam naa ko gannaaw ba nag borom bi ne bu dee siiwal moom bu ngeen siiwalee lu baax ab sarax la digle njekk la ak lu mu mën a doon man yàlla xam naa ko su ngeen ko nëbbee it xam naa ko mi ngi noonu mi ngi wax feneen ne su ngeen feeñalee sarax bi lu baax la waaye nëbb ga moo gën lu dul feeñal ga ñaax ca ñeneen nekk ca lu dul feeñal ga ñaax ñeneen ñu def te nekk ca su boobaa moo gën borom boobu nag ne su ngeen balee lu bon it xam leen ne yàlla moom kuy bale la ci ko am kàttan la looloo tax bu mbokk julit soo dellu woon suratu nuur suñu borom mu ne julit ñi day leen bale day leen jéggale ala tuhibbuna an yaxfira allahu lakum ndax bëggu leen yàlla jéggal leen ci aha kay heure bu la doomu aadama tooñee nga mënoon a faj tooñ gi nga wëlbatu ko baal ko ci yàlla tax bàkkaar ya nga defoon sa diggante ak borom bi mu ëpp la kàttan foofu mënoon koo faj yàlla it baal la say bàkkaar kamaatu diinu tuddaan loolu lépp la loolu lañ lay fay xanaa yàlla mu ne kon mooy kiy jéggale jéggale ci am kàttan ci mi ngi noonu yonent bi alayhi salaam daan nañu wax it képp koo xam ni nëbb na meram ci amoon na kattan ci génne mer gi ñu toñ ko moo mën kattan man koo def lu bon wala wax ko bon mu nëbb mer mi ci yàlla tax yàlla dana feesal yaakaar dënnam yowmal qiyaama yàlla na yàlla yombal ko ci ñun ndax borom bi it nee na ca beneen saar ca fusilat kenn du am loolu illa zu hazin azim lu dul ko yàlla may cër bu rëy ci moom rek moo mën a mer di nëbb meram mi ngi noonu borom boobu nag subhanahu wa taala ne ñi nga xam ne dañuy gëm dañuy weddi yàlla ay gëmuñu ko nañ ko war a gëmee te bokk na ci weddi yàlla firiwul ne yàlla amut laa weddi yàlla mooy bokkaale ak yàlla wa rusulihi weddi ay yonentam te bokk na ci weddi yonentam mooy ñàkk a gëm lenn ca ñoom ki weddi woon benn yonent moo ki weddi yonent yépp ñoo yem loolu tax suñu borom mu ne qawmu nuux day weddi nañ mursalina yépp te ñoom benn yonent lañ dajeel ñooñu nga xam ne dañu naan dañoo bëgg a teqale ci yonent yàlla yi naan ñun diw lañ gëm gëmuñu diw bëgg a jël ci diggante boobu aw yoon te loolu mbokk mi ngi noonu boo demoon ci yahudiya dañ ñaa Isa ibn Maryam doomi njaaloo la gëmuñu it yonent yàlla muhammad nga dem ca nasaraan ya ñu weddi yonent yàlla muhammad looloo tax suñu borom ne inna alladina kafaru min ahlil kitab wal mushrikin kafaru lu tax yàlla ne kafaru et pourtant gëm nañ yàlla gëm nañ seeni téere gëm nañ seen yonent waaye maadaama gëmuñu yonent yàlla muhammad kafaru yakfuruna billah borom boobu nag subhanahu wa taala ne ñooñu bëgg a jël ci diggante bi aw yoon ñii ñooy yéeféer yi dëgg-dëgg te yàlla ngi waajal yéeféer yi la nga xam ne mooy mbugal mu leen di toroxal te it mbokk aay bii ko ko doon firi ci Arabie Saoudite doy na sëkk waaye booy firi Sénégal da nga ci dolli ne weddi benn bi yonent ak dolli ci liste bi benn yonent ñoo yem ca yàlla ku toll na yàlla bind sab liste na ñii laa yónni nga génn ci kenn na ko ah yàlla déedéet kii du yonent kee moom indi keneen na ko ah yàlla liste bi da ngaa jum mais kii ci la bokk yéen ñaar ñëpp a yem mi ngi noonu képp ku gëm ne ma sàmba yonent bu yàlla la wallahi mook ñi weddi yonent yàlla bi ñoo yem képp koo xam ne nii da ngay jàpp ne yonent yàlla muhammad day yàlla yónni na ko yónniwaat ko yaa ña ci dolli beneen yonent ñoo yem ca loolu lépp mbokk da ngay gis ne mbir la yu ñuy dund suñu réew yàlla na yàlla subhanahu wa taala delloo ko gannaaw borom boobu nag subhanahu wa taala ni bu dee ne nag ñi nga xam ne gëm nañu yàlla nañ ko war a gëmee mbokk ngëm yàlla dañ koy jàng de ngëm yàlla ay téere la ci borom xam-xam yi bind ñu ngi noonu aqida bu wér iman saxiix loolu dañ koy jàng la aju ci ay turam ak i melokaanam ak i dogalam ci jaam yi laaxiri waaye gëm ay yonentam dolli wuñ ci kenn wàññi wuñ ci kenn teqale wuñ ci kenn suñu borom yàlla nee na ñii day seen pay man maa leen koy jox daañu leen jox seen pay te it yàlla day kuy jéggale la kuy yërëmaate la ca mbokk doomu aadama ak noo mën a muusa ko mocc loo toroxlu toroxlu bàkkaar kenn mënu ci mucc yàlla mu bind doomu aadama muy def ko tu bàkkaar ku nekk nag ak sa façon bàkkaar bala yàlla subhanahu wa taala nattoo bi bàkkaar doomu aadamul ci mucc li ngay def koy mooy bu ko tey mukk di ko def heure boo la ko yàlla nattoo nga gaaw tuub dellu ci yàlla su boobaa de yàlla jéggal la yërëm la yàlla na yàlla boo la ñu min at-tawwabin non bismillah يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا سماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرا فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفرنا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا jazakumullahu xayra suñu borom mu ne yasaluka ahlul kitab mi ngi lay ñaan di la laaj ña nga xam ne ñoo jotoon téere ba di yahud ya an tunazila alayhim kitaaban min as-sama ci nga wàcc ci ñoom téere buy bawoo ca asamaan faqad sa'alu muusa akbara min zalik ñoom day jox laajoon nañ muusa lu ëpp loolu fuuf fa qaalu arina allaha jahratan ñu ni won ñu yàlla ci wonin gu feeñ fa axazathum saa'iqa noonu la leen jàppee la nga xam ne mooy yuuxug alkaange ga bi zulmihim ca bakkaar ya ñu defoon ca tooñ gañ tooñoon summa ittaxasul ijla min baadi ma jaatuhum albayinat gannaaw ba ñu jël sëlluwa muy nag bu ndaw bi di ko jaamu ba mu gannaaw ba mu leen dikkalee lay yu leer ya fa afawna an zalik ñu jéggili ci loolu wa aatayna muusa sultaana mubina jox muusa lay woo xam ne lay bu leer naññ la wa rafa'na fawqahum tuura bi misaaqihim yëkkati ca seen kaw montagne ba ca kóllëre gañ jàppoon ak ñoom wa qulna lahum duxulul baaba sujjada gannaaw ba ñoo wax leen dugg leen ci buntu dëkk bii di Palestine ngeen ànd di sujjuut wa qulna lahum laa ta'udu fi sabt ñu ne leen bu leen jéggi dayoo ca samedi ja wa axazna minhum mithaqan ghaliza jàpp ak ñoom kóllëre goo xam ni kóllëre gu dëgër la mi ngi noonu bokk suñu boroom mi ngi wax ci ñu yées ci ay jaamam ca mooy yahudi yahudi yooyu nga xam ni jamono ji ñuy wax ak yéen ak jamono yi ko jiitu ñu ngi lor suñu mbokk jullit yi nekk Palestine gën jaa màgg ci lor mi ngi noonu bokkoon na ci lu ñu waxoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ah waa yow nee nga yàlla la yónni da ngay indi téere bu jóge kaw asamaan ñu xam ne yàlla moo la yónni te xam ngeen ne tawraat bi yonent yàlla Muusa yoroon suñu borom moo ko bind muy ay alluwo yàlla ko bind ci loxoom jox ko Muusa katabna lahu fi l alwaax min kulli shay'in maw'iza mi ngi noonu léegi nag bëgg nga ñul gëm la indil téere bu jóge kaw asamaan suñ borom ne yonent yàlla muhammad loolu ñuy wax day bu mu la yéem bu mu la yéem ndax laajoon nañ Muusa lu ëpp loolu ay bañ àndeek Muusa ca montagne ba yàlla doon déeyoog moom suñu borom yàlla di wax ak Muusa ñuy dégg bi mu bi bi déeyoo ba pare ñu ne ah ya Moussa dëgg-dëgg dégg nañ kàddu gi de waaye bala ñoo gëm ne ki doon wax ak yow yàlla la nga won ñu ko ñu gis ko jëf rëten ñu gis ko en direct mi ngi noonu loolee mbokk da ngay gis ni bañ ko waxee rek la suñu boroom indi benn yuux gu jóge kaw asamaan goo xam ne bi mu leen jàppee ñoom ñëpp dañu dee ci saa si ñoom ñëpp a dee ci saa si Moussa ñaan yàlla ay yàlla bu ñu jàppee ci lu dof yi di def yàlla lu muy wax bani israil fekk ñooñu ñoo ca gënoon muy juróom-ñaar fukki yàlla tànnoon suñu borom commencé dekkal leen ñuy dekki kenn par kenn di dekk kenn par kenn ba dekki waat gis ngeen waaye mbokk loolu nga xam ne Moussa da ko waxoon ñii mbokki Moussa yi na ko won ñu yàlla moo ndax tey déggu leen ñoo xam ne dañ naan dañ leen di won yàlla mi ngi noonu dañ leen di won yàlla waaye mbokk ku la woo naan daf lay woon yàlla neel auzu billahi min shaytaani rajim bani israil de ba ñëwee Muusa wan ñu yàlla borom bi nee na la ñu wax moo gën a màgg ñi naan yow yonent yàlla Muhammad duñ la gëm lu dul nga wàcc téere kaw asamaan su ko defee mbokk yàlla kenn du ko gis ci àdduna yàlla subhanahu wa taala kenn du ko gis ci àdduna xatta suñu yonent sallallahu alayhi wa sallam yàlla def na ci moom xar baax xar baax yoo xam ne xaw na sax méngoog la ay xar baaxu àllaaxira ndax doomu aadama miinul loolu ay benn guddi yàlla bëttaloo ko juróom-ñaari asamaan nga xam ne kenn xamul nu ñu koy mën a imaginer ci des milliards et des milliards ci ay années lumière waxumaa ne kilomètre yàlla yóbbu ko fa ko soob yonente boobee sallallahu alayhi wa sallam bi mu ñëwee ñu laaj ko ndax gis nga sa boroom dane yàlla xijaab nuur la ak leer la nan laa koy gisee xijaab boobu su ko borom bi dindi woon dana lakk lépp luy nekk ci àdduna kon yàlla mbokk kenn du ko gis ci àdduna allaaxira lañ koy gis te bu boobaa suñu borom yàlla dañuy bindaat beneen façon bindiin bu bokkul ak suñu bind bi amma ci àdduna kenn du la won sa borom jalla wa ala ku la wax yàlla la lay won seytaan la lay won ñu ngi noonu borom boobu nee na ñoom musiba boobu ñoo ko defal muy benn ñaareel bi it mooy ñii naan la indi téere jégg ko asamaan ñoo doon jaamu nag ba lu tax mooy seen maam ya doon jaamu nag wa ñoom lañ doon bàkkoo kon mel ni na ñoom ñoo ko def ci bani Israël comme ni ngeen ko xamee sunu borom yàlla ba mu leen musalee Égypte yóbbu leen ci désertu Sinaï bi dañoo fa sàccoon ooru waa Égypte seen yóbbaale ca la leen benn saay-saay bu ñuy wax Samiri dajale or bi defar ci benn nag nag bi commencé di génne ay bruit am ñu ne da koo defar ci technique am ba bu ngelaw lu duggee muy génne ay ay bruit am ñu ne déedéet yàlla ko nattu dafa jël ci deexatalu fasu jibril xëpp ko nag bi nag bi commencé dund di di di di di jooy comme ni nag di jooyee ñu koy ñoom ñëpp ñu koy sujuutal ne kii mooy yàlla Moussa yàlla moom Moussa moom ma nga dem naan day seeti yàlla fekk Moussa yàlla nga ko jox rendez-vous bu 40 jours yu mu war a déyoo ak moom bi Moussa ñëwee gis ne ñi ngi jaamu nag bi alors sunu borom yàlla subhanahu wa taala jox Moussa ndigal mu jël nag bi taal ko jël ko def ko dóom sànni ko naam ne nag yéen ñi doon jaamu nag bi pour yàlla baal leen da ngeen di nangoo toog ñu rey leen ñi bokkuloon ci jaamu gi rey leen ku ci dee dem aljanna mi ngi noonu ñi ciy dund yàlla baal leen yàlla mi jubal ku ko neex donte ne ñu saay-saay lañu waaye keroog yàlla def ci ñoom ngëm ñu nangoo toog ñu rey ci ñoom ay junni junni loolu la borom naan suma afaw na an zalik waaye jéggal ga du du du du xam nuñ koy waxee du lu yomb de mi ngi noonu suñu borom subhanahu wa taala nee na Moussa wa iz qaala Moussa li qawmihi ya qawmi innakum zalamtum anfusakum bi ittikhadikum al-ijla fa tuubu ila baari'ikum faqtulu anfusakum pour tuub dellu ci yàlla da ngeen nangu ñu rey leen suñu borom nag nee na ma baal leen loolu jox Moussa lay yu leer te mooy tawraat ba nga xam ne yàlla jox na ko ko kawtiif yu ne nekk ci mu war koo indil bani Israil suñu borom ne leen xuzu ma ateenaakum bi quwwa bani israil yahud yu bon yooyu lépp lu leen Moussa santoon ñu bañ suñu borom yëkkati montagne bi nga xam ne mooy ak tuuru Sina tuur ba nekkoon ci Sinaay yëkkati ko mu ñëw tiim leen am na feneen mu nekk annahu zulla mel ne benn en tente bu leen tiim suñu borom nag ne leen ku jëgg a ku jëkk a jalgeetee ci tawrat ci yéen montagne bi maasale leen ñoom ñépp ñu sujjuut jël seen catu ja teg ci suuf seen beneen bët ñu koy xoola montagne bi naan gufraan na ko yàlla jéggal ñu yàlla jéggal ñu ba yàlla teggi montagne bi ba ñi xam yahud dëgg-dëgg sax dañ ne ab yahud bu jàqee bay ñaan yàlla dañ ne suñ maam yi kat ba ñuy sujjuut ngir yàlla teggi montagne bi seen catu ja la ñuy sujjuute dañuy jël seen catu ja teg ci suuf beneen cat bi ñu xal ko asamaan di ñaan gis ngeen ndax mbon gi nekkoon seeni maam yahud yi bon yooyee suñu borom yàlla subhanahu wa taala gannaaw ba it bi mu leen waxee dugg leen Palestine ca jamonoy Moussa dañ ne ñun duñ fa dugg am na ñu fa nekk Moussa fexeel génn leen Moussa ne leen dem leen xeex su ngeen demee rek yàlla dimbali leen ñu ne hé Moussa demal yaa ak sa borom nga xeex ñun ñu ngi toog fii yàlla nattu leen 40 ans yoo xam ne mënuñu génne li nga xam ne mooy désert bi nekk Sina mi ngi noonu diggante nekk Palestine ak fa la nga xam ne mooy Liban ñi ak Syrie ñi ngi nekk côté boobu 40 ans israéliens yi mënuñu ko génn ku xëy di dox di dox di dox di dox ba ne làcc foo nelawee rek boo yeewoo fa nga jóge démb nga yeewoo mi ngi noonu suñu borom bàyyi leen foofu ñu dem a dem ba mag ñi àndoon ak Moussa presque jeex ba génération bi nga xam ne ñoo juddu gannaaw bi ak ndaw ñi nekk mag ca la leen nag suñu borom yàlla dooleeg kenn ci ay ndawi Moussa mu Yusha kooku moo ànd ak ñoom xeex ak waa Palestine dàq leen Moussa avant muy faat ne woon na leen bu ngeen demee bay ubbi dëkk bi balaa kenn dugg na sujjuut sant yàlla doog a dugg waaye ñoom bañ duggee ñu ne waaye ban sujjuut ñun ñoo xeex ba ubbi ko ñun li ñu bëgg kay xinta gis nga borom baa ngi koy wax ca baqara fa baddala allazina zalamu qawlan gayra allazi qila lahum dañ leen waxoon udxulul baaba sujadan wa qulu xitta dugg leen ci ba dëkk bi ngeen sujud ngeen ne yàlla ñi ngi ñaan nga jéggal ñu ñoom ñu beew ci loolu dugg fa di puukarewu mi ngi noonu borom boobu subhanahu wa taala loolu la wax ci ñooñu gannaaw ba it ba fi Moussa jógee bani Israël yii naan la bala ñu laa gëm kaza wa kaza yàlla nattoo woon ne leen la nga xamee ne nii mooy bisu samedi ne bu leen ci liggéey comme ñun ni ñu yàlla nattoo ne heure ci àjjuma buñ ci liggéey ci diine gi yàlla dañu ko woyefal defuluñ ci benn xat-xat su neexoon yàlla mu ne àjjuma ba benn jurit liggéey waaye yàlla lam araamal ci ñun mooy une heure de temps isa nudiya li sala bàyyi leen liggéey isa qudiyati sala fantashiru ila liggéey ñu ngi noonu jeex na une heure de temps maximum par semaine la yàlla araamal ci ñun amma bu dee yahud yi dañ leen waxoon yow mu sabt ay ajjumaa ngi ni jant bi sono ba baa jant bi so ci ëllëg benn yahud amul droit liggéey lenn lu koy jox alal mu amoon nag ñoo xam ne ñu ëppoon ci ñoom ñu ngay woon géej di napp di jaay yàlla dogal bi su samedi biñ dul dem géej jën yépp ñëw tefes gaa yi muñ ko muñ mënuñu ko muñ léegi bu ajjuma dañuy dem sànni seen mbaal ci géej def ci ay kii bu jën yi ñëwee dugg ci mbaal yi bu dimanche ñu xëcc mbaal bi dégg nga borom xam-xam ya fa nekkoon ñëw ne leen saawaay lii nga ñu def dafa xaraam ñu ne waaye bu leen ñu fontoo waay yàlla samedi la wax buñ ko napp ñu napp ñu samedi dimanche lañ napp yaa ngi dégg suñu borom ne leen nekk leen ay golo loolu it mbokk da ngay gis moom la borom bi di wax fii muy wane yëpp ne bari na ay naxante yoo xam ne nit ñi dañ koy def rawatina ci wàllu riba la nga xam ne mooy riba ci wàllu iina naxante ak sa boroom def bakkaar bi directement moo ko gën da ngi noonu bari ni fi ay nit ñoo xam ni yàlla subhanahu wa taala araamal na njaaloo waa ji sëñ bi doyoon na rek ci njaaloo ñeenti jabar yëla yàlla daganal mooy njaaloo bokk xanaa ngay njaaloo ci tuub waaye jël ñeneen takk jàpp ne lii lu dagan la daganalal ko sa bopp yooyu yépp da ngay gis ne naxante la ak borom bi subhanahu wa taala su ko defee mbokk bakkaar bu la yàlla tere xamal ne negam sa mbokk nit bu ñor nga munta nax waxuma yàlla mi la bindoon loolu nag moo taxoon yahud yi doon naxante ak borom bi subhanahu wa taala suñ borom xas leen xas yu mag yi nga xam ne xas na leen ko te yàlla xasu leen waxuñu ko lu dul fañ jaaroon ñu moytu ko te it da ngay gis ne farata la ci yow ku góor farata la yow ci jigéen bés bu nekk farata la imma nga wax ko ci sa làmmiñ wala nga dégg ko ci gannaaw imaam ihdina sirata almustaqim sirata alladina anamta alayhim gayri almaxdubi alayhim wala dalin yàlla teg ñu ci yoonu jub yoonu ñi nga xam ne gërëm nga leen musul ñu ci yoonu ñi nga mere te mooy yahud ñi yàlla di wax wala dalin te mooy nasaraan yi mi ngi noonu yal na yàlla nangul ñu ñaan googu ñu koy ñaan te defal ñu jàmmi àdduna ak jàmmi alaxira wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain dañ koo joxoon ndàmpaay ci ay assurance am na ñetti at ndax azaka da ciy war azaka daal mi ngi war ci alal ji nga moom ak fu mu mën a jóge nag da nga koo doon sa baayoo dañ la koo mayoo da nga koo liggéey bépp alal joo xam ne soo dee woon ñu donn la ko nga denc ko ren ba déwén bu matee nisaab da nga koy génne zakat dañuy seet daal mooy ndax yaa ko moom mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam bismillah naam waa ala kulli xaal loolu lu bees la loo xamee ni nii nit ñi ñu ngi koy jëflante mooy dem ci banque yi di jënd la nga xam ne mooy au lieu nga jël xaalis nga jël ci ñoom la nga xam ne mooy matériel ala kulli xaal la nga xamee ni nii mooy banque bi amoon ay produit produit boobee mën na yegg ba ci kër mën na yegg ci oto mën na yegg ci lu nekk yow nga ñëw lépp banque bi oto bi ba doon jar ci marché bi 3 millions banque bi lebal la ko 5 millions it loolee dana dagal la nga xamee ni mooy lii ëpp ci borom xam-xam yi ubbee it wax mooy lii moom dafa xaraam nga dem ci banque bi ne ko kat damaa gis ak kër kër gi nangam lay jar. jëndal ma kër gi léegi moom banque bi di la fayee ko intérêt su boobaa banque bi au lieu mu jël xaalis jox la daa dem rek fay borom kër gi borom kër gi la fay léegi nag yow yaay fay banque bi intérêt mbokk loolu ci naxante ak yàlla bi ci la bokk ku mel ni cheikh usaymin bokkoon na ci ku daan ŋàññi loolu daan moytuloo jurit yi loolu mu ne ki dem leb banque bi 10 millions fay ko 11 millions kooku moo tane ndax kooku riba direct la def am naa kii nag day jéem a naxante ak yàlla xam ne ne bu lebee banque bi pour fay kër gi loolu dañ naan bu fayee de teg kii mu ne kon banque bi fayal kër gi man ma fay la loolu da ngay gis ne mbokk lu xaram la xëy na nag mu des loo xam ne lu nekk ci diggante bi mooy yow nga ñëwoon na banque bi man day bëgg naa oto bu mel nangam oto bu mel nangam banque bi moom dem wuri oto am ñëw lebal la oto bi su boobaa loolu day xëy na moom ak lënt mën na ca nekk waaye daal bu dee yow yaa gis sa oto yaa gis sa kër ne banque bi ne la fayal nga ko jox intérêt loolee moom mbokk mbir la moo xam ne bu xaram la wallahu subhanahu wa taala alam naam bismillah waaw nga dugg laysa waaw mani yi mooy sama mani yu doomu aadama ab mani yoom ay mën na den ay ci moom bokk na ci borom xam-xam yi képp ko fexe génne sa mani yu ci koor sa koor yàqu na képp koo xam ne sa mani yu puus na la ba nga tabbi ci njaaloo loolee da ngay gis ne dalay alag la la yóbbu doomu aadama la nga xam ne moo koy gën a puus ci njaaloo mooy yëg-yëgu googu nga xam ne mooy yëngutu ci moom loolu nag moo tax yonente bi alayhi salaam naan ko yàlla nag ma musal ci sama ay mëniyu ca la chaq ne yonente bi alayhi salaam ñaan yi mu doon ñaan yëpp pour jullit ñu roy ko ci di ko ci ñaan ndax moom yàlla def na ko masuum ci bakkaar yu bëri du ci dugg waaye nag boo gisee ñaanam yi bëri woon yooyu yëpp mooy jullit ñi nga xam ne loolu mën na leen a dal di ñaan ñaan yooyee ngiree mën a mucc ci loolu mi nga noonu wallahu alam naam naam ndax mu ne bu ñuy naafi la jigéen ñu ñu ne dañuy jàmbat am na seen benn moroomu jigéen boo xam ne day ànd ak imam bi di jàng ba sàpp yi du ko dégg mbokk loolu def ne bidaa def na lu ñaaw bu ko góor doon def sax baaxul waxuma jigéen bu góor doon def loolu sax baaxul waxuma jigéen mbokk imam kenn du ànd ak moom di jàng ba nit ñi di dégg sam njàng di dégg njàngom imam loolu moom kenn du def loolu ca it encore imam buy jàng dañoo war a toog déglu ko waruñoo nekk di ànd ak moom di jàng loolu ñu bàyyi ci xel bu baax am ma ndax jigéen bu màgget mënees na koo nuyu ala kulli xaal yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa waxoon man day du ma nuyu jigéen te nuyoo boobee amul fenn fu mu ko limité woon su ko defee daal ñu xam ne la nga xam ne mooy la gën a mat mooy nañu fexe nit ki mag laam màgget la yow daal góor ak jigéen ay nuyonte ba ñu séq seen diggante te it maa ngi leen di wax yéen ndaw ñi it ne ñun sunu aada xamul nuyoo góor ak jigéen loolu bokkul sunu aada réew tubaab yi ñu ñu ko fi indil li ñu xam jigéen day tom gis góor jox ko santam jàll mais góor ak jigéen daje ku la jox sa morom loxo loolee ñu nekkul suñu suñu aadam réew yal na yàlla subhanahu wa taala defal ñu afiya fi dunya wal axira wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain